sooy naka def. maa ngi fi rek yaa ngi si jàmm. jàmm rek alhamdulilah alhamdulilah. ana pël boobu baax. ah Ngor sama dooma sa doom la. waaw sama doom ah li mu def jékkul jaaduwul. ah loolu moo dem jàmbur mais dégg nga maam. Ah. mu dem yàq yàqu boo yàq yàq yàq nage lekk fa day fa saw fa. déet loolu du yoon waay. ah loolu day digalu ma ko. wala yéen a yem rek. yéen a yem rek ndax yaa ngi moom a ànd. ma ne yéen sa bopp bi wàcc ko. dama ne ñaar yéen a ànd. sa bopp bi wàcc ko. ma ne yéen a ànd. sa bopp bi da koy wàcc man damay arrangé ci àll bi laa jóg. waa ma ñoom ah, waajooju ak keneen ki. waaw gone gi boobu kookaan ci àll leen déet yéen a bokk àll bi. yéen ko gaañ parce que kañ ko ñoom ma ne nag di seetaan loolu. déedéet. ah yéen dañoo paree gun ngeen. waroo seetaan tool yi waroo seetaan loolu de. suñ tool yi de. saa seen dëkk amul am a bokk àll bi. bokk àll def leen naan tax ñu yàqal barki démboo Njaay nga ne wutal ma mu dalal ma. déedéet daawaati jéeg maal dalal samay tool ngi béy tubaab fa tàllaa nga am gerte mayoo ci kenn ma jël ñaay boo waxee noonu dana ko ñaayal de ba ñaaw bu duma naanam soow duma daloo pour duma ah, naanam soow naanam soow nga ne ma waaye duma ko naan man nag maa chef de village bu baasal wali jam gis ma seen soxla an kosam am gondoo am wur foofu an yari dam bi aw ala mi ni ma fay an min men. Eh, dama naan kosam laa wax. donc c'est eh, Hamadu daal mu ngi oh, mu ngi mu si àll bi. Hmm. wax naa ko kool moo toccil tool. nga yoo ko gerte na saamu ngooñ bi. saamu ngooñ bi. waaw waaw yaa ngi am sa dugub joge woo ko ko. bala ñoo dem fenn maa ngi ñoom. dinañ ko maa ragal waaye su bopp bi mu dal ma. waaye gis nga. ragal man boo ma ëppee dooleel maa daw. ah waaw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 tey eh, moom. maa ngi nii tey maa ngi nii. arme boobu nga eh, def baax waaw waaw bii kay. bàyyi rek yow kay dinaa ko xaw a rek. bàyyi rek ma dem rek. ma ma dem rek. waaw. bàyyi leen mu sedd ay waay naan leen ndox mu sedd buñ leen defoon biir kon ba léegi dañ koy def naan ñoom kon wala ñu egg fa ci déeg ba. du ko nit li am. moom. yaa ngi ko am maa ngi leen di. ñun ñu ngi dem. ngir yàlla déglu leen ma dem waaw baax ñu ngi dem de. kon kay kon nag xam lépp lépp dëgg la. dañ dem de. ko wan kon nit